doom gi mitti na kaajoo nit dina la amel sa alal def la xam ne soo munta muñ amuloo maîtrise yow di def loo xam ne doonay bàyyi la mun la def ba tax nga def ko loola ëbbati ko dal sa kaw dara du fii dëgg la faam di sa soxna dëkk ci ab kon yor sa oto soo ne tëll yëpp ñëpp jóg tàkk daal yuuxu te wala ndànk ngay raam yooyu provocation la yoo xam ne foofa ca koñ ba la mais jant bu ngeen amee jant ba dem ci commandant de brigade bi wala ngeen toog ba enquête commencé su ko rey di nga xam ne am nga koo fajee nit du fajal boppam mer bu mu la poussé ci nga fajal sa bopp rombal na woo sa soxna ne ko nangam nangam na sa soxna ci nangam nangam na la provoqué na fat sa soxna romb ko def surdu oreille war ko ne yow du ma sama romb du yow di man mukk bokkul bokkewuñu dans une même catégorie doteel ak doomu aadama na la wax loo xam ne leer na la ne lii yow yaa ko moom ndax wax dina tontu ba nga xam ko wallaahi bu tontu defal surdu oreille romb ko demal ca yoon foo fekk garab gi ni xas mënoo koo féete ginnaaw mukk mukk mukk mukk mënoo ko féete kanam ba pare taxaw di ko xas garab gaa ngi nii nga ko ca kanam ëlbati ko di ko xas ko mën ta nekk garab kay bala nga koo mën a xas da jiitu féete la ca kanam nga dër sa tànk bu baax a baax a baax di xas di xas waaw waaye mu nekk sa ginnaaw nga bëgg koo xas mënta nekk foo fekk xas nit foo fekk kuy toroxal nit foo fekk kuy indil doomu aadama soo ko seetloo ci ginnaawam lay nekk. kon na ngeen ci jërëjëf Pape te ñoo xam ne ni kii nga xam ne bu ku mel ne ay AP Babacar Samb ak Assane Binta Seck ak Kalidou Yaya Mbodj ñooñu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant mais tamit di nuyu sama xarit bi Maar Mbaay nekk police jàmm gën si kaw mbaam Maar Mbaay maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant yaa ngi def sa liggéey. moo la baal daaw non moo ma jàpp. ayca papa kontaan nañu merci moo ma jàpp yóbbu ma waaye nag Mamadou Touré bu kaw la. jërëjëf moom moo tëb intervenir ak ay kilifa yu bari. daal di intervenir. ma di ko gërëm Maar Mbaay ci liggéey bi mu def tout ak kii mais nag mënoon nga maa nangu rek nga parqué oto bi foofu. bu ko dawal suba rek. waaw ayca ah, jërëjëf Fall kontaan nañu bu baax a baax. fi na toog wax ko. yàlla baax ñoom ñëpp bokkuñu si réew mi soo demee ba Njaareem am na ku neex Baye Fall ak benn policier bu neex jàpp. na nga foofa waaw. ñoom sax xam nañ ne oto bi amul visite technique samay xarit na. jërëjëf Fall kontaan nañu bu baax a baax. ak ñi monté fii booru EMG bi. moo doon policier bi ñi monté ba. daanaka da ngay wóor a seetaan. su ma jàppee rek nag ma fan laa koy teg. ayca jërëjëf jërëjëf Père Mbaye Ngoné. waaw di dem nag ba Ngaye Diagne di gërëm bu baax Anta Fall sama doom ak Makumba Thiaw maa ngi leen di gërëm bu baax Ngaye Diagne di gërëm ki nga xam ne mooy maire Awa Sow Caggaay Diagne maa ngi leen di nuyu baax leen gërëm ñoom Fatou Seen ñoom euh, Fatou Gueye bu Baye Sow bu Gueye di nuyu sëtu maam Moussa Kare Gueye yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Sophie Gueye nam naa la gëj naa gis Galaay Cheikh Pena maa ngi leen di nuyu Sophie Gueye nga gëj a kooku ah, kii waa kii mun naa mun tëj waaw mais man de ma waaw d'accord incha allah bu mercredi nga daal di euh, euh, yeggali ñu ngi nuyu euh, bu baax a baax monsieur le maire le maire sortant c'est ça monsieur le maire Talla Sylla waaw ñu ngi koy nuyu mi ngi ñuy seetaan ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Talla Sylla ah mooy non non moom moo génn. mbokk taalibe moom moo nekkoon mais moom moo nekkoon mais. magal magal ba Touba Talla Sylla ñu ngi koy gërëm ci seetaan bi kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf di remercier bu baax ñëpp ñi nga xamoon ñi nga ñi ngi doon bàyyi xel ci émission wu tay bi papa di jaajëfal képp koo xam ne émission bi amal na la intérêt parce que c'est pas très évident bu baax a baax mais sant yàlla ah defal nañu géej jën yaa ngi ne xas mu nu oto ak waruwaay dañ ko invité yoon benn jour insha allah waaw na ñëw daan ko invité na ñëw la bara ngaa na nga jaar ca xaadim sàmb bu kees ne ko maa ngi jëm ca peen mbay mbóone incha wala nga dem euh, ca Modou Anta mhm. mbër mhm. nga ne ko mu yóbbu la ci sëñ Saliou Fall Ngunda mhm. nga ne ko maa ngi jëm si ci peer ki mbay mbóone yow defe naa yaa ngi dëkk ci xolu Kajoor te ku dëkk ci xol wala nga jaar ca marché ba nga seet Aale Njaay mooy euh, Euh, le coordonnateur bu filière bu oignon. Hmm. wala nga dem daal bari na foofu mën a dem Cheikh Ndiaye Inakwa. <laughs> ma nga ca yoonu ngent wa ci deux voies ngent ya. épicerie ba nekk foofu dama leen ci leen nga laaj leen leen yaa ngi jëm si ci góor gi. soxla naa lool taal. ayca dina dikk incha ah, allah dina ñëw waaw incha allah. ko indi maa ko indi teg fi. ah naa ko indi teg ko fi. moom taal si la. ah bëggoo lool. waaw barka borom Tuubaa. jeex na bala ngaa ñëw na nga dem ca xaajum sàmm. waaw ah, ah, xam-xam la de. borom xam-xam la de. borom xam-xam. bon euh, une heure passée de 16 minutes léegi may ma ma remercier Ouli di ko souhaiter aussi di si profiter aussi pour souhaiter un bon anniversaire Ouli borom Idole c'est son anniversaire aujourd'hui. moo ma jox daal yi. waaw daal yi ma sol aussi daal yi ma sol aussi moo ma ko jox. Hmm. donc waaw dina la jox marakisi mais waaw daal yi nga doxee caaroy ba fii duñ ci dama sol ko ba bàyyi ba bàyyi téye ko ak sa tànk. Ah, ñàpp lay def sa tànk. ñàpp lay def sa tànk. yëngu def dara waaw nga dox ba bu la neex jël ko téye ko say loxo bëgg kii bu ñu génnee bu ma nuyu boo xam ma sonn. lu ma def wuyu ma. lu xam ci Uli Uli on te souhaite tout le bonheur du monde. un joyeux anniversaire ma chérie di la ñaanal jàmm. idole Marrakech part de tous tes amis moom moo jaar ci daal yi ma sol tey la bàyyi ma pare ci uli uli uli waaw bàyyi ma pare ci <laughs> <laughs> that I human designed. maa ci gën a soog non gisuma kuy dund lii ay design maa ngi ñëw ci loolu yëpp maa ngi ñëw ci design. Altima. Ah, ah, Al. Altima Al la. Ah. non non Altima design. da ma bàyyi ñaan nii. waaw man seen fit daf ma jaaxal yii sokke naa leen. yow gëm nga ni képp ku ay la ay ay. wallaahi man daal xaw ma lan moo tax mu yab ma ay tima ay tima di alo al yow yaa ñeme yow yaa tax maa jënd nit am surtout yow yaa tax lii di waa ji du ba am tuuti. mais yow ay timaa la ay timaa la ay timaa la. ay timaa la ne damay tuddal kooku daf ma neex. Ah, ah, waaw. sama mag jooju ma mag. dafa xam ay timaa ma mag la fu mu dëkk. fii Paris. ah dinañ fa añi bés. moom ay timaa. ah que ayilay boobu Tanor Tita Mbaye ñoo bokk ndey ak baay. Tanor Tita Mbaye. ah, eh, ah oui eh, loolu la mu ne ñaw. c'est ta sœur. loolu la mu ne ñaw ah oui. togg doog ayilay lalla. Ah kan fa dem. mais ci pat ndax daanaan la bu tàmtee soxla. Ah. ah lu mu gàtt non lu mu gàtt. lu ci doon ah. lu mu gàtt kii rek yow ko. moom moom du yow. léegi laajal ma ci. dugal na ci keneen. naka nga ci keneen. nu mu tudd. kii xam naa ndaw ku ndaw ci pet ndaw lu tudd. pupet pupet ndaw. pupet kañ laay ñëw. léegi mën ngeen ma dimbali ngir yàlla ma mën a tàggoo. ah gërëm idole Ouli pour sama daal yi merci beaucoup ma chérie. man nekkuma laa kii si laa bëgg. Elio 77. 427 56 23 427 56 23 moom moo jaar ci samay dàll mais din gaal seen na lépp moo ko defar donc Ouli ñu ngi remercier di la di la souhaiter bon vent encore une fois parce que liggéey bu set ngay def. léegi fan la boutique am laaj ma ko. ba atelier fu mu nekk please please ma la vente en ligne lay def. vente en ligne mooy mooy lan vente en ligne lay def. vente en ligne ci internet bi lay jaay. mais loolu ku mënta dugg ci internet nooy jëndee moom. waaw am na ñu ko bëgg ñu ngi dugg foofu di ko jaay. loolu xew foofu la foofu la monde bi xewee dugg ci internet. foofu la monde bi xew mais amul capacité yow vues yi ngay laajte fu muy daw. ah 1 million 2 millions de vues fu muy jaar. kooku dama ko am na ñoo xam ne dañu nekk nekk ñu sax benn plateforme internet mais loo wax ñu ne la dégg naa mën nga def ba à 2 euh, millions de vues. di di di di gërëm euh, Fatou Flash of Color du côté des États-Unis pour la technique merci beaucoup Yaboy kontaan nañu bu baax a baax. Flash of Color. <laughs> ñu koy gën waaw léegi nekk États-Unis moom la mooy Fatou Fa ah, Fatou Fa mhm. moom ba État la nekk mu ngi Ohio ah waa Columbus Ohio gis nga nag bu yeboo nga jàng anglais de euh, man nga ni madame eh, man dinaa dem de Mara Maram Gueye Adja Diop jàng anglais la balaa ngeen. parce que foofu agent bu la laajee nga juum rek lay rapatrié. ñoom Abdou Ndiaye nga fa Abdou ma nga Atlanta. Abdou Ndiaye Maram Gueye Adja Diop ma nga Atlanta. jëkkëram yow ñi góor ñi sant Gueye dañu baax barki démb la ko laal 4-4 bu ne muut macha allah moo Sacré Cœur la nekk sama mag boobu moom ma def xel moo ma nii. ki nga xam ne daa mën ceeb. non non ba maa mbay dinaa la yóbbu ci ma maa mbay yow. numéro bi nekk 78 591. ah waaw waxal ma 32 j'ai pas porté mes lunettes. ok moom moom ay climat bi la numéro bi 78 581 32 31. voilà mooy kii mooy kii mooy papa doo noppalu ba beneen jour ngir sa incha <laughs> allah ba ba dimanche please. Ah, du yow yaa ma ne dafa mënul ceeb. maar bi ñu dem. mu mënee ceeb nga toog sa jabar mën na ceeb. ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah. Ndiaye yaa ko mën fuuf. waaw barka borom Tuubaa Ndiaye yaa ko. Ndiaye Ndiaye Fall. Ndiaye xamoo ko xamoo ko. force de la femme borom Tuubaa Mbàkke ceeb la mën. d'accord kooku kay bokk. mu yàlla la yàgg yàlla la yàgg di ceebal. bàyyi jàmbur ay waay itam du ma métti. yàlla la yàlla ceebal. yàlla la yàgg di la ceebal. yàlla la yàgg di la ceebal bul yàq ko bul jàmbur wax dëgg. fi mu nekk dëgg la Ndiaye xale la en plus dafa mën toog dëgg la